بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين نوغي سان سونو بوروم aji màgg ji te kawe noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi moom sunu boroom noo ngi julli di sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu dëkkee dotti waamem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain noo ngi ñaan sunu borom bi asmaihi alxusna wa sifaatihi alula an yataqabbala minna innahu huwa alsamiu alalim wa an yatuuba alayna innahu huwa altawaabu alrahim dellu siwaat nañ beneen yoon ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru alquran alkarim téereb suñ borom bu màgg bii nga xam ni ñun ñépp ñoo ci bokk yam téere bi nga xam ni bokk na ci li ko tax a jóg mooy dimbali ñu ci war ñu ci yoon wi gën a jub ba ñu mën a texe téere bi nga xam ni lépp njariñi àddina ak yu àllaaxira borom bi da ko cee dëxëñ téere ngi boo xam ni kenn du ci moy lu dul dafay gindeeku kenn du ko wan gannaaw lu dul dafay alku téere ngi boo xam ni kenn du ci sonn ci àddina lu dul sunu borom dana ko teral téere ngi boo xam ni kenn du ko sori lu dul sunu borom dana ko toroxal téere ngi boo xam ni borom bi yàgg naa yëkkati ay nit ci sababas fonk téere bi téere ngi boo xam ni borom bi yàgg naa toroxal ay nit suufeel leen ci sababu suufeel gu ñu suufeel téere bi téere ngi boo xam borom bi da koo wàcc pour ñu koy jàng di ko settantal téere ngi boo xam ni képp ku koy seetlu da nga ci jëlee njariñi àddina ak yu àllaaxira téere ngi boo xam ni melokaan wu tedd la ko suñ borom jox bal huwa quranu majid fii lawxin mahfuz noo ngi woon ci saar wi di suuratul mumtaxana tey ñu war a jël bind bi mujj ci suuratul mumtaxana insha allah sunu borom di wax ni acuudu billahi min alshaytan arrajim bismi llahi arrahmani arrahim يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور laay yooyu di ñaari aaya mooy sunu bindab tey di laay mujj ci suratul mumtaxana bu ngeen fàttalikoo saar wi bi muy tàmbali waxoon nañ ni saar wi la ko tax a jóg mooy natt ak nattat le ñi gëm yàlla lan leen di digal ab nattu la liñ leen di tere tamit ab nattu la natt bu nekk nag ña koy def dañ caa war a génne ak ndam waaye waruñ caa génne ak ñàkk ndam ndam la mooy ki lay doon nattu lam la digal nga def ko lam la doon tere nga bàyyi ko li gën a fës ci digle bi te sunu borom tàmbalee ko saar wi te moom la nar a tëjee saar wi tey mooy képp koo xam ni gëmut yàlla nañu fecceeku ci moom ba set wecc ci ay mbiram ab yéefër ab yéefër doo ko bëgg ab yéefër du ngeen xaritoo ab yéefër du ngeen jàppante kóllëre mbiram du sa mbir feetam du sa feet te it lenn loo xam ni xeeti dimbalante la yu jëm ci mbiram diine mbaa lu ko jege doo ko defaranteeg ñoom fii ak matal nga loola de yow jongante bi jàll nga yow waaye ku natt sa bopp gis ni yooyu moom mënoo ko wala am na yoo ci mënut yëgal ni yow natt bi sunu borom doon natt yow jàlloo yow te xam ngeen ñàkk jàll musiba la laayat yi mujj nag mook laa yi ubbi woon saar wi sorente wuñ ndax ñaari laaya la benn bi borom bi dafay nattuwaat ñi gëm yàlla ak wane nan lañ leen di nattee te nekk ay jigéen bi ci mujj suñu borom di ñu soññ ci lam ñu tàmbalee woon saar wa mooy ab yéefar moom bu leen séq lenn lu jëm ci wàllu dimbalanteeg bëgganteeg fonkante rawatina bu dee lu jëm ci wàllu diine la bi dars bi passé gisoon ngeen ida jaakum lmuminat yubaay ida jaaka almuminat muhajiratin famtaxinuhunna sabab sa mooy bi julit ñi gàddaayee julit yu jigéen ñi dañ doon fàq di daw di fekki julit ñi nekk madina lan lan fa doon wuti loolaa tax natt bi agsi ndax xamuñu ndax kii daa ñëw ngir daa mere jëkkëram bëgg koo fajee mer def ko tukkib fajub mer kee moom dafa am ku mu bëgg ca góori jullit ña moo tax mu gàddaay kii moom yàlla yi kese moo ko tax a jóg benn borom xam-xamu ne lu tax ñuy nattu jigéen ñi te nattuwuñ góor ñi mu ne yàlla de moo gën a xam waaye lay xaar góor ci ay risque balaa gàddaay dana ko xool bu baax a baax ndax boo nee cëpp madina moom bu ñuy takkeb xare da nga cay bokk te sa bakkan na caa xaj te loolu farata la ci yow bokkul ak jigéen kon jigéen bu jógee pour gàddaay taq-taq mën na caa am waaye góor gu jug pour gàddaay moom li ëpp boo seetloo ba ci biir yàlla rek kay tax ñu jug donte nit mën naa jug te yàlla taxut tey góor comme lu mel ni man kaana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imrat yankixuha fa hijratu ila ma haajara ilay imaamul buxaari nee na toxal nañ jëlee ci urwa ñu jëlee ci aïcha soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni yonent bi aaya yii moom la doon nattoo jigéen ñi bu ñu yegsee muy yaa ayuha nabiyu ida jaaka almuminatu yubayianaka ala an la yushrikna billahi shay'an ba ca gafurun rahim su jigéen ji nangoo matal ponk yooyu yonent bi jaayanteeg moom warwa nee na aïcha nee na su benn jigéen ñëwee mu matal sart yooye yonent bi ni ko bayaatuka kalaaman aw bayaatuki jaayante naag yow ci ay wax mu ni wallahi ma massat yaduhu yada mraatin fi lmubayaati qattu wa ma yubayicukunna illa bi qawlih qad bayatukunna ala dhalik aïcha mu ni giñ naa ci yàlla ni yonent bi joxul benn yoon loxo ab jigéen ndax ñun dañoo jàpp ni jaayante faw nga joxe loxo waaw bu dee góor mën ngaa joxe loxo te góor sax du ñëpp mooy sart ñu joxe loxo ndax xam nga bu ñu doon jaayante xalifa ba ña mën a joxe loxo rek ñooy joxe loxo ña mënul joxe loxo fas ko ci seen xol waaye jigéen moom ak lu nuy mën a jaayante bu dee góoru jàmbur la du joxe loxo Aïcha nee na giñ naa ci yàlla ne yonent bi ab loxoom tegewut ci kaw loxo jigéen ca jigéen ñooñe ak jeneen jigéen judut moom te nekk jàmbur ci moom moom daal dam doon jaayante mooy bu la waxee kàddu yi nga ni ko nangu naa mu ni jaayante na ak yow ca loola te loolu mi ngi ci saxul Buxaari loolu di nga ci gis ni day firndeel la yonente bi waxoon ni inni la usafixu nisa innama qawli limraatin waxidatin ka qawli li miati mraa yonente ba muy jaayante jigéen ñi comme ni ko imam ahmad solo ci musnad ñu jëlee ko ci umaymata binti ruqayya mu ni dama dikk ci yonente bi di jaayante ànd ak samay moroomi jigéen yonent bi jël jaayanteeg ñun ci aaya yii wàcc ci saar wi waaye mu ni fii mastataatunna wa ataqtunna li waral boo waxee nga ni insha allah mooy bu dee soob na yàlla ndax bu ko soobut bu la ci jàppalewul du sotti ku jaayante ba noppi nar a dem rek yonent bi ne di déet déet fii mastataatunna neel bu de bu ci li ma man li ma man lépp dinaa ko def mu ni qulna jigéen ña daal ni allahu wa rasuluh arhamu bina min anfusina dëgg dëgg dëgg dëgg nag ñoo ngi doog a xam ni ndekete yàlla ak yonent bi ñoo ñu gën a yërëm sax sunuy bopp ñun maanaam ñun yërmande ji ñu am ci suñu jëmm yi ndeke yàlla ak yonent bi sax ñoo ñu gën a yërëm xoolal bi ngay jaayante mënoon ngaa jaayante dem yonent mu ni déet da nga ciy boole ni ci li ma man yonent bi benn jigéen daal ni ko ala tusaafixuna ah waa doo ñu jox loxo mu ne ko inni la usaafixu nisa man damay tere joxe loxo loolu nag intilaqan min hada ci lii ngay xamee lu leer naññ ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere joxe loxo te daf ko xaraamal ci góor yépp yonent bi nee na ñu jël sa loxo teg ko sa bopp jël puso mbaa pont daaj ba mu dugg ci sa yuur bënn ko moo gën a sedd fa yàlla nga jël sa loxo jox ko jigéen ju la lewut li ay xadis la de tey nag fi jamono toll mooy joxante loxo ci boppam daanaka nekkatu dara bokk na ci li tax nekkatu dara mooy ñiñ yaakaaree diine ñoo koy njëkk a def góoru jaambur du jox loxo jigéenu jaambur da nga koy nuyoog da nga koy ziyaaraak da nga koy lu mën a xew góoru jaambur gu baax du jox loxo jigéeni jaambur ju baax góor gu baaxul nag mën naa jox loxo moroomam jigéen ju baaxul bu fekkee takkante amul seen diggante su dee damaa tàmbalee ci yonent bi nag ne la yonent bi da koo xaraamal te daawu ko def keneen ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppal ni bu ko defee lii rek la topp bakkanam la topp bakkanam afa raayta man ittaxada ilahahu hawa ki topp bànneexu bakkanam moom mën naa def loola ak ku mën a doon nag martaba ju mu yore bu mu rëy ci yow ndax yonent bi moo gën a rëy martaba ñëpp loolu nañ ciy bàyyi xel baax yonent bi alayhi salaam moo gën a rëy martaba ñépp te yonent bi da doon tere boppam loola bul ni ma diw moom amul problème moom bu joxee loxo du du yëg du yëg bànneex waaw ndax yaakaar ngeen ni yonent bi moom su fekkonte ni joxe da loxo moom du gën a mucc moom sallallahu alayhi wa sallam waxoon kay bu dee wóolu dong Aïcha ne woon na yonent bi moo leen gën a mën a maîtriser bànneexam te yonent bi daawul joxe loxo Abubakar kadalika Omar kadalika saxaaba yu baax yépp góoru jaambur du jox loxo jigéenu jaambur loolu dafa xaram ci lislaam personnalité bu mën a doon nag ci diineeg bitib diine saa boo ko gisee mu jox loxo jigéen joo xam ni jaambur la ca moom yëgal ni daa juum waaye loolu taxul mu dagal bala nga am la na may da nga dégg ñuy wax ni am na ñoo xam ni seen maqaama ca yàlla ñoom yegg na ci ñoom bu ñu joxee loxo jigéen sax duñu yëg loolu waaw kon da yonent beeg saxaaba yam ay maqaam seeni maqaama kon yeggu fa xanaa ñoom bu doon loolu dongal defe naa yonent bi kon waroon na mën a joxe loxo te tere ko saxaaba ya ñaareel bi mooy gis nga yii xew tey bokk na ci firnde yu lay wan ni maanaam góor yu bare bare bare daanaka dañuy lëngër lëngëri rek waaye duñu ay góor gis nga góor boo wéree dëgg góor bu wéree dëgg di lekk te wér ah te moyut yàlla lii xew ci jamono du ko man parce que bu ko defee day am problème dugg ci oto di riisaloog jigéen jigéen jox la loxo nga jox ko loxo nga war matu jigéen ni ñàpp ni tàpparaat tàpp tàpp sa gi sa ginnaaw damay wax ni góor gu wér mënut loolu yàlla seede na loolu may wax nii li may wax nii góor gu wér mënut loolu gis nga góor gu wér bu ko defee rek day dee bu koy def rek di dee dee gi nag maa ngi ci namm maanaam fitna dana ko rey parce que du mën a maîtriser boppam su boobaa parce que jigéenu jaambur ak góori jaambur comme fiili yuy maasante léegi nag gis ngeen joxante loxo gi ni gadd xoolal gis nga saa booy xool lu bon sooy xool lu bon wala ngay joxante loxo wala ngay riisonteeg ay jigéeni jàmbur bu yàggee sidit yi newoon ci yow mooy bàyyeeku gis nga élastique moo ne élastique da nga koy jënd takk ko ci ndigg bis bu ne ngay sol tubay jéeg summi te élastique mën na dund lu yàgg doog a dee léegi jëlal beneen élastique nga jël ko naan nii rek moom takk ko ci tubaab yi da nga ciy fon yi bu yàgg rek nga gis tuuti ngay def rek élastique bàyyeeku yàqu moo ne ñaar yëpp benn amul différence bi bii day bàyyeeku di ñëw bii di bàyyeeku di ñw waaye bi nga takk fii ful laa ko tax a jóg moo tax dana gudd fan gis nga bii fo moo ko tax a jóg moom da nga def bu yàgg rek nga gis affaire bi nee na yàlla bàyyeeku moo tax gis nga góor goo gis muy foye loolu rek yëgal ni daanaka mu ay siditam moom moxoñaatoo na ñaaral bi mooy bàkkaar bu rëy nga cay am bàkkaar bu rëy rëy rëy rëy rëy nga cay am am na nit ñu am fulla tey ba duñ joxe lox benn waay dafa wax benn julit waa ji Angleterre la dëkk mu nu benn julit waaw yéen lan moo tax yéen ngeen di tere loxo ñuy jox loxo góoru jàmbur islam di ko tere xam nga Angleterre ren la ñuy am buur la ñuy am bu jigéen julit bi ni ko waaw est ce que yéen seen buur bu jigéen bi ñëpp population bi yëpp danañ ko jox loxo mu ne ko déedéet góor ñi ay quelques personnes lu mat ay ñett juróom segam mat na ko ñoom ñoo ko sañ a jox loxo moom ren bi mu ne ko lu waral lool mu ne ko loolu de ay luwaa la yuñ fa tër rek mu ne ko nag gis nga ñun ci jullit ñi jigéen ñëpp ay reen lañ moo tax islam tere góoru jàmbur jox leen loxo allahu akbar moo tax gis nga yeewu ak a baax nag boo ko defee dañ lay yeew de gis nga ñoom benn ren lañu am benn buur lañu am bu jigéen ñu naan ay quelques personnes ñoo koy jox ñun nag suñuy jigéen ñëpp ay buur lañ gis nga yéen juróomi nit ngeen tànn ñun nag jigéen ñëpp lañ tànn def leen ay buur moo tax ñu ni ñenn ay quelques personnes ñu nit ñoo leen mën a jox loxo sa mag sa rak sa jëkkër sa bàyyi jëkkër ñooñu bañ mat juróom-ñeenti nit ñooñu ñoo la mën a jox loxo te yooyu yi may wax ni yëpp ku dellu ci tafsiru suratu nuur insha allah defe naa faram fàcce woon nañ fa yëpp koo mën a takk ak koo mën a takk ak ila axiri yooyu yëpp leeroon na fa kon ci gàttal président de la république ak ministre baak kilifa diine gaak borom dëkk baak oustaz baak borom xam-xam baak ñépp a ci bokk yem góor goo gis muy jox loxo jigéeni jaambur gëmal ni góor googu ragalut yàlla parce que jëfewul santaana bi yàlla foofu góoru jaambur du jox loxo jigéenu jaambur comme ni ko yonent bi defee sallallahu alayhi wa sallam su ko defee mu ni mu daal ñu daal di jaayante yonent bi joxul loxo benn jigéen daal dina jaayante ak ñoom ci lii am na xadis bu imam ahmad solo ñu jële ci ubat ibnu samit mu ne yonent bi daf ñoon wax allah tushriku billahi shay'an wala tasriqu wala taznu wala taqtulu awladakum ba aay ji jeex comme ni mu tëddee mu ni fa man waffa minkum ku matal lii ñu doon waxtaanee day fa ajruhu ala allah kooku na yëg ni moom ak payaak ma nga ca yàlla di ko xaar wa man asaaba min dalika shay'an fa uqiba bihi fa huwa kaffaratun la yii ñuy tere ku sàggan ba def ci benn ñu jot laa caw yari lislaam ci àddina comme ku mel ni ku njaalo ñu caw ko wala tuumaal ñu caw ko wala naan sàngara ñu caw ko ku ci def benn ñu caw ko cawi àddina nee na lool mooy nekk kaffaaraam amaana yowmal qiyaam dara du ko topp waaye mu ni wa man faala wa man asaaba min dalika shay'an fa satarahu allah alay fa huwa ila llah in shaa gafara lah wa in shaa adaba ku sàggan ba def ci njuumte yi benn yàlla sutural la fii ci àddina mu ni say mbir dañ koy bàyyi ak yàlla boo demee àllaaxira ba dañ laa mbugal ba nañ laa baal loolu nag wóorut loolu wóorut moom man ngaa dem nañ dem ba àllaaxira ñu réglé ko foofu nga dem mën ngaa perte mën ngaa gañe loolu wóorut moo tax gis nga ki juum ñu caw ko yari lislaam kooka jaanam wàcc na moo tax saxaaba ya ku ca musaana njaalo ñëw ne yonent bi damaa njaalo yar ma nga yaakaar ni kii dafa dof dafut jinne jàpp ko daa xam la muy fekki lan la kooku dafut jinne jàpp tàngooru xal yiñ boyal ci biir xol bi teg ko ci ànd ak ngëm yàlla muy boy moo tax mënatuta muñ loolu mu dem ñu daal di koy caw yar lislaam kon ci gàttal sunu borom ni ya ayyuha nabiyu ee yow yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ida jaaka su la dikkalatee almuminaatu ñu gëm yàlla ñu jigéen ñi ni yu bàyyianaka dañoo bëgg a jaayante ak yow na nga jaayanteeg ñoom ci lii ma lay bëgg a wax saa bu jullit yi jigéen yi ñëwee pour bëgg a jaayante ak yow mu ni na nga jaayante ak ñoom ci mbir yii may bëgg a wax bi ci jëkk ala an laa yushrik na ci nañ bañ a bokkaale billahi ci yàlla shay an dara dara dara dara dara lu mu néew néew ci bokkaale buñ ko def pour ñu accepter la nga bokk ci muhajiraat yi accepter la nga bokk ci muminaat yi te lii suñuy jigéen war nañ koo déglu parce que moo nekkoon charte ña doon yegg si ça veut dire que kon ñooña dañ ko war di dund bëgg xëy faatu bàyyil ko fi ñu ñëw seen gannaaw du caageen yow da ngay ñëw tey pour beesalaat pour naan xaarama dem ci diw pour jaayante waat déet loolu amul li am mooy lan jaayante woon soo jàngee quran loolu nga war a appliquer bi ci njëkk mooy ala alla yushrik na bu ñu bokkaale billahi ci yàlla shay'a dara dara dara buñ ko bokkaale dama seetlu aaya ji sama xel laaj ma ay laaj bokk na ci laaj yi mooy waaw jigéen ci boppam ak góor pour man ñoo war a yem ci bokkaale yàlla ñaareel mooy jigéen yim gën a garaawee njaalo lañ ko gën a garaawale ka ci bokkaale yàlla lan mooy illa ji tax yàlla jiital bokkaale yàlla ci yëf yëpp yàlla de moo xam lu mu doon wallahu aalam sama xel daal di may jox ni jigéen dafa faible te faible sam ji toujours da koy bëgg a jabru day bëgg lum ko fàttee jigéen dafa faible dafa néew doole dafa gaaw a afole dafa gaaw a jaaxle te ku gaaw a fatt gaaw a jaaxle gaaw a afale ki lay xitili nga di ko gis boo gëmut yàlla lool moom ngay gën a yàkkam ci ki lay xitili te doo ko gis muy suñ borom te bokkaale yàlla dafa garaaw garaaw goo xam ni ku ko xamoon muy góor muy jigéen ci ñoom ñëpp la bokk xaram yàlla mooy kan mooy buur bi nga xam ni amul fu mu tàmbalee ñu naan moom foofu moom kenn juru ko kon judduwut amul fu mu tàmbalee bañ naan fii la tàmbalee fekku fi kenn bañ naan diwo ko fal amul fu mu tàmbalee te du am fu mu yem moo fi jëkk ñëpp te jëkkante wu fee kenn moo fi mujj ñëpp te du fi mujj ak kenn moo fi indi guddi moo fi indi bëccëg jurut kenn te kenn juru ko kenn amalu ko njariñ nag te moo amal njariñ ñëpp ku loru moo la mën a xittili ku féex moo la féexal soo lekkee moo koy reesal sa maam ak maamam ak maamaatam ba ca bàyyi aadama fi lan ko fekk parce que moo leen sàkk moo taxit fi lan ko bàyyi mbooloom àddina mi yëpp ku fi yàlla jox ndombay tànk dina ko rocciwaat daal di koy jël ca kaw la féete nag waaye xam-xamam mi ngi fépp dara ump ko ci jaam bi kenn munu koo lor nag kenn munu koo jariñ jaamu yàlla yi ñuy def dolliwu ko dara mooy yàlla yi wàññiwuñ ko dara xéewal yi muy joxe magasin ba mu koy tibbee ba àddina sosoo ba tey mi ngi fay tibb di joxe te ba léegi dara jugee gu fa doomu aadama bu faatu moo la faat ku dund moo la dundal ku am wërsëg moo la ko may ku alku moo la alak wa annahu moom moomee adahaka wa abka ku ree moo la reeloo ku jooy moo la jooyloo wa annahu moom moomu ngeen dégg amaata wa ahyaa ku dund moo la dundal ku dee moo la rey wa annahu moom moomu ngeen di dégg ah xalaqa zawjayni dhakara wal untha moo bind góor moo bind jigéen min nutfatin ci ndox mu ñàkk solo nag ida tumna wa annahu wa anna alayhi moom moomee nasatul uxra bu ñu faatoo ba jeex ba seey bu ñuy dekkiwaat moo ñuy dekkal wa annahu moom moomu ñuy dégg huwa rabbu shi'ra biddiw bu rëy boobu nga xam ni kenn xamul nu mu toll ci rëyaay borom bee ko moom te ñenn ñi di ko jaamu waroon wala si ñu jaamu suñu borom wa annahu moom yàlla ba léegi ahlaka aadanil ula giir aat gu yàgg nga xam ni sum way niñ amee woon doole ah samuud alladina jaabu soxra bilwaat yàlla moo leen alakoon wa samuuda giir samuud gi ngeen dégg fa ma abqa ñépp la alak bàyyu fi kenn wa qawma nuuxin min qabl nit yonte yàlla nuuxi te ñàgg ña moo leen alak wal mutafikata ahwa dëkk ba nga xam ni sunu boroom dafa dëppar ñi woon suuf si dëpp ko ci seen kaw ñooñu ka ko defoon kooku mooy sunu borom jàpp naa ni lii ku amum xel buñ la waxee ni diwa ko def même boo amul woon pas-pas sax war ngaa lijjanti kookooy kan la waaja ne woon yaa ayuha nnaas man de xaw ma man daal xam naa ni jànguma amr ibni zayd ibni nufayl xaw ma yéen a ngi koy fàttalee comme de ci xayaat sahaaba yi amr ibni zayd ibni nufayl mu ne man de jànguma duma bi yonent yàlla yónniwu ma waaye yaa ayuha nnaas ismau waau bu yeboo ngeen déglu ma te ngeen xam li ma bëgg a wax nii lum doon man a aasa maata ku dund di nga faatu wa man maata faata ku dee say mbir jeex ah samaun bila amad asamaan si ne dàkk dàkkaral kenn téyewu ko suuf lalu ba léegi pëtëxut nga gis mu ni ku nekk xam na ni tànku gileem day wane ni gileem a fi jaar neefaree gileem day wane ni gileem a fi jaar mu ni xaw ma lu xew waaye xam na ni yëf yi am na lu nekk ca gannaaw di ko doxal xaw ma nag kum doon man yow kay xam nga ko jeex la loolu kay jeex la loolu kay mooy pas-pas kii kay bu fekkoon yéen saa salaam loolu dañ ko war a nettaliwaat ndax kooku kay mooy li mu wax mooy pas-pas bu set wicc kookoo yàlla subhanahu wa taala kon jigéen bu mu bo yàlla subhanahu wa taala jigéen ak góor bu ñu bokkaale yàlla luqman nee na doom ji yaa bunayya ay sama doom laa tushrik billah xaw ma lan waaye bokkaale moom bu ko boole sa programme inna shirka la dulmun azim xoolal ki def lii lépp nga wutal ko moroom wala ndend wala nga am xéewal sant keneen ba ko boo giñee ci keneen ku dut moom def nga musiba boo demee ci jabarkat ba def nga musibay musiba te loolu la jigéen ñi gën a man nag buñ jaaxlee saa boo jógee nga dem ca boxaaba mbaa jabarkat ba mbaa gisaan mbaa seetkat ba premier engagement bi nga jël sa digganteeg yàlla mooy yow yàlla fii ak ñeent fukki fan moom xam naa ni samay julli doo ko fi nangu parce que yent neen ku dem ci boxaabakat wala gisaakat mu wax la nga gëm ñeent fukki fan kenn dangu sa julli beneen riwaay mu ni génn nga ci lislaam ku génn daa war a duggaat balaa ngaa dee bari nañu dee te fekk jotuñoo duggaat est ce que xam nga ne bari nañu dee ñu jullee leen teg leen ay jullit yàlla xam ne ne fekk génn nañ ci lislaam lu garaawa ngoog nag xaw ma bàyyi ngeen ko xelam déet bari waa nañ ñu faatu ñu jullee leen saraxal leen def leen li ñuy def lépp fekk ay yéefar lañ jullee lu ko waral mooy daa génn ci lislaam jotagul a duggaat far faatu ci diggante bi parce que ku def nangam génn nga ci lislaam jeex na amul explication bu gudd njabarkat ba xam nga ni su manoon dara sa sa 500 bii sa 5000 bii ak 5000 ab bay diw ak 5000 ab bay diw moom la bëgg a boole muy ay weexal pour mu koy dundee xam nga ni kooku bu xamoon dara kay wax dëgg yàlla da koy defal boppam. te it kay ma xamal la ñaan nag lu salte salte la gaa yi def nag loolu nag moom gone gu gone tubaab yi gone gone Dakar mën na ko bañ a xam waaye jàngkatub ndonga daara ab ndonga daara pire xam na ni mbir yu salte salte la ñuy def sax mbir yoo xam ni yàlla xam na ni borom xel mu sell sax bañ na ko. ci xeeti nax yoo xam ni la hawla wala quwwata te lépp jigéen ñaa fay dem léegi ci suba rek laay suivre benn image bu ñu ma jox boo xam ni ab jigéen bu demoon ci buxaaba mu wax ko indil nangam indil nangam indil nangam ba indil indil ko basang indil ko se daal mu ci njaaloog moom daay def ko ci internet bu tasaare ko musiba yi ci am yàlla rek ko xam jigéen ji yëgal ni sa néew doole gii amul ku ko mën a dindi ku dul yàlla ndimbal yàlla rek la mënal dara jigéen ña dañoo nangu woon bàyyi luy xeetu bokkaale def te yàlla taxut giñ ci kudut yàlla dem ca njabarkat ba dem ca pettaawkat ba dem ca xaatimkat ba dem ca seetkat ba ah yii yëpp nga bàyyi ko ba mu set wecc soo ko deful yëgal ni sa ngëm yàlla yow des na yow ala an la yushrikna billahi shay'an dara dara xoolal baatab shay ni mu tuutee bu leen bokkaale yàlla dara dara bokkaale moom na jeex maanaam say say vocabulaire moom bokkaale bu mu ca bokk léegi nag mu des nag julit bu jigéen ba ko doon def ak ki ko dul woon def ka ko doon def moom na yëg ni mi ngi woon ci alko alkande ki ko musta def na natt boppam ndax moom yii dugg ci benn barke sama nangam ak barke nangam ak giñ ci kudut yàlla ci boppam moo jaaduwut ndax ngiñ waxoon naa leen ki mooy lii ma bëgg ngeen gëm ko day xam naa gëmu leen ko xaaral ma seet lu mag loo xam ni moo gën a foor lépp su ma leen ko waxee ngeen xam ni li may wax dëgg la kooku yàllaa ca doy kese yent mu ne man kaana xaalifan falyaxli billah aw liyasmut ala an laa yushrik na billahi shay'an mooy buñ bokkaale yàlla dara dara dara dara ci bokkaale foofu nag bu kenn jàpp ni góor ñi kese jigéen ñee ko moom góor ñi ci lañ de gis ngeen ak cëriñ ak cëriñ fi nekk nii dafa dox trop nag dafa dox lool ma wax leen lu reelu loo xam ne mooy lu xew est ce que xam ngeen ni fi ne njàngum arab mi jànkati arab yu bare bare bare bare bare dañuy préféré léegi nekkub sëriñ xaw ma yëg ngeen loolu wala déet loolu nag dafa xew ci réew mi léegi xam nga lu ko waral parce que jàngkat bi su paree jàngale la ma ne jàngal da ngay wax ba dee doo am xaalis commerce nga mën a def ca commerce moom risque la gañ ak perte la bee nag moom neex na nooy na am na xaalis neex na nooy na am na xaalis parce que amuñu fere yow daal lasraar ngay jàng rek comme niñ koy waxee su ko defee daal di ubbi sa benn pantere teg say affaire yu garaaw sa béccen bu xonq fee sa nangam sa butéel boo xam da nga caa dugal ab nen sa affaire maam xumbal affaire bi nag ba mu ba mu ba mu xumb pour nit ñi nga di leen tiital su ko defee léeg-léeg ñu yor ay xeeti feem yoo xam ne ci la ñuy meebee nit ñi am bëkk néeg bu garaaw nag bëkk néeg boo xamante ni su mu waay moo raw bu kib néeg moom ci buntu bi lay taxaw rek jékki-jékki eh soxna Ayda dugg si yow nga tiit yow ah wa yow foo xamee noonu laa tudd mu ne ko sëñ bi dee ma ko wax sëñ bi de moo ne ma wool soxna Ayda moomu ci saal bi man te sëñ bi gisagu ko nga yegg si nag ak sa tiitaange gis nga ni ñu lay nappee fekk seytaane bi mu àndal moo ne ko am na ku ne ci saal ba de ko tudd Ayda loolu du dara yow moom daanu nga leer te yegg seegoo seytaane bi ne ko kii de mi ngi jóge yëmbal mu ne la yow de defe naa yëmbal nga jóge nga gën a jommeeti ah yow de sa jëkkër mécanicien la nga gën a daanu leer nag lim lay wax lépp fekk du dara yow wallaay seytaane bee ko koy wax loolu du des du dara seytaane bee koy wax lépp gis nga yooyu ñu koy waxal nag ba àggal sabab lay doon ci mu mën laa meeb nag ci meebukaay yi su ko defee bëkk néeg boobu xam nga bokk na ci li muy liggéey mooy day collaborer rek ab jigéen wala ay jigéen parce que xam nga xaw ma xam ngeen comme déet bokkaalekat yàlla jigéen ñi lañ gën a bari client hey sama waaja kay moom su ma la ca yóbboo kooku moom du nit bu dul nit kay bu ko seeti balaa mu laa jommal ko du nit kay baaxul moom kay ba mu jàppalee diw ba bàyyi su ko defee gis nga client yi day gaaw gis nga jigéen ñee gën a mën a lancer loolu. médecin bu mën a faj mbiru jigéen moom ak sëriñ bu mën a liggéey jigéen ñee ci gën a gaaw ci wasaare ko moom. parce que bokkaale yàlla ci seen secteur la gën a fësee su ko defee nga gis nag client yi commencé ñëw. la ca nekk ci biir nag ci xeeti mbonte moom daanaka yàlla rek rek rek rek moo ko xam kon ala an laa yushrik na billahi shay'a mooy bu ñu bokkaale yàlla ak daara daara saa boo jaaxle yow ku jigéen ki yëgal ni am na koo xam ni jaaxle fi la ko fekk muy yàlla allahu akbar fi la ko jaaxle fekk de daa am lu ñuy tuddee nit am lu ñuy tuddee jinne am lu ñuy tuddee kontaan am lu ñuy tuddee jaaxle moom nit ak moom jinne moom kontaan ak jaaxle yooyu yëpp fi lañ ko fekk yaakaar naa kooku jaaxle jaaxalu ko de soo jaaxlee dellul ci moom gis nga faiblesse bii moom la yàlla xam ci jigéen ñi moo tax mu njëkkee ala allah yushrik na billahi shay'a du pettaaw du xaatim du dañ doon wax naan yooyu xale bu juddoo boo ko deful lii boo ko deful laa ñaata nit tey ñoo weddi loola seeni doom sum waay ñi ngi ñu cocc dara dalul leen parce que du loolu mooy saafara du loolu mooy faj lii faj mi ngi bàyyi ko ci yàlla comme ni ngeen ko gisee woon ci roy leen Ibrahima ci xeet yi nga xam ne moom la ko sunu borom dénk ci xeetu pas-pas kon su la jigéen ñi dikkalee ala allah yushrik na billahi shay'an buñ bokkaal ak yàlla dara benn ngoog bi ci topp mu ni wala yas wala yasriq na bu ñu sàcc wala yasriq na bu ñu sàcc gis nga ni ma tomb bu njëkk bi jaaxalee noonu la ma tomb ñaareel bi jaaxal tomb ñaareel mooy góor moo war a gën a mën a sàcc jigéen du noonu la du góor moo gën a war a mën a sàcc jigéen de du noonu la waaye sunu borom jiital ko xam nga bokk na ci xekma yi wallahu alam lu ko waral jigéen a gën a jekku sàcc jigéen a la mën a sàcc ba nga tiit nag gis nga góor góor a gën a mën a sàcc waaye jigéen a gën a jekku sàcc moo ko jigéen a gën a aay góor ci sàcc téeméeri junni yoon gis nga góor moo gën a mën a sàcc moom la nga xamee sàcc waaye jigéen a gën a aay ci sàcc gis nga jigéen mën na laa sàcc ba noppi dara du ko ca fekk dara du ko ca fekk parce que ay techniques yu simple lañ yore yoo xamante ni yow ba ci jëkk bay mën nañ laa sàcc te doo ko xam ñaareel mooy mën nañ laa sàcc ba noppi seenu làmmiñ musal leen ñetteel mën na laa sàcc ba noppi làqatu ci ginnaaw góor ak yeneen ak yeneen yoo xam mu ne su ko sax a wax nag kon wala yasriq na bu ñu sàcc bu ñu sàcc sàcc nag da cay dugg. comme ni ko borom xam-xam yi waxee sàcc ba sàcc sa jëkkër su fekkee jigéen ci daa jàpp ni kii sama jëkkër kese la sama jëkkër la amul benn problème kon su ma jëlee alalam benn la bala ma lay wax ni ci la bokk dama lay wax loo xam ni xel mu ko dégg dana ko nangu mooy sa jëkkër yoru la yow kese te baayam ak yaayam ak jabaram ñépp am àq ci alal ji kon boo jëlee te lañ ma lu yëgal ni yaa ngi jël àqu jàmbur ñaareel mooy bu sa borom kër yore yeneen i soxna wala mu yore yeneen i doom yëgal ni ñoom it ci àq ji lañ bokkoon boo jëlee jëloo àqu kenn waaye àqu mbooloo nga jël te àq moom defe naa bu kenn ëpp na ci waxuma la bu mbooloo beneen bi ci topp nag mooy jëkkër nekk ko taxut alalam nekk nekk sa alal déedéet ah imam ibn al jawzi mi ngi nettali ci sifatu safo jigéen joo xam ne man daf maa yéem ndaw si day mooñ di mooñ dama koy nettali ngir nga xam ñooñu fu ñu tolloon donte ñun loolu duñ ko def ndaw si di mooñ ba mu yàgg fa lañ ko fekk ni ko ah diw de inna lillahi wa inna ilayhi sa jëkkër faatu na de mu daal di arrêté mooñ gi ni kon reer bi duñ ko lekk lu ko waral mu ni sama doom yi dañoo am ay doom yi baay te lii mi ngi ñu lewoon bi muy dund comme faatu na nag lii ci miraas mi la war a bokk kon du ñu reeree mooñ gi tey kon du ñu reeree mooñ gi noonu la ko fommee ba reeree wuñ ko allahu akbar kon wala yasriq na bu ñu sàcc bokk na ci yi ñuy nettali borom xam-xam di koy nettali mooy hind daa waxoon yonent bi ni ko waaw abu sufyaan de ku nay la moom lim may jox doyut léegi nag la may jël nag yonent sa salam ni ko jëlal lu la doy te doy sa doom te bul ëppal su booba doo ci am bàkkaar su fekkee góor gi am na nangam te dañuy xool ndax am na ko wala déet ak ndax man na ko wala déet ba noppi lànk bañ koo def su boobaa boo jëlee ca alalam lu tolloog nag kon da koy am ba pare man ko lànk bañ koo def te it boo jëlee da ngay jël lu tolloog la nga aajowoo kese yem ca ñaari yooyu nag jàpp naa natt ko ba mu yemb yombut kon wala yasriq na bu ñu sàcc sàcc mooy nga jël yëfu jàmbur loo moomut ak noo ko jëlee nag sàcc nag façon léegi dafa bari ay façon am na sàcc na bëtu am na sàccug siif am na sàccug maatay am na sàccug li may def nëbb ma ko kenn yooyu yëpp mi ngi am ndax xam nga ni ñu dënk la kees mbaa ñu dénk la na nga gëpp gëpp ko dem si na lëbbtoo làqutoo xam nga ni ko comme làqutoo ñëw fekk yëfi jàmbur daal di koy maasaka la jël sa yëf dem sa yoon loolu ma xam nga kooku làqutoo léegi moom da ngay gis sàcc gu gu gu kéemaani sax sàcc goo xam ne xaaram ci xaaram ki koy def làqutoo kon bokk na ci atte yi mooy wala yasriq na bu ñu sàcc bu ñu sàcc jigéen ji na góor góorlu ba lépp lu ko lewul bu mu ko jël gis nga góor ni muy moytandikoo moo tax dëgg-dëgg rek waaye jigéen ñu yàgg ña bokk na ci liñ leen daan taggee mooy jigéen ji day bàyyi ba borom këram di génn di xëy mu ne ko sama ndijaay soo demee di liggéey na nga xool li ngay indi bu baax ah jigéen ñi saa boo jàngalee seen dund rek ndeysaan sa xol bi day jeex sama nijaay boo demee na nga indi lu lew soo amul ñëwal dara du la ci fekk ndax ñun mën nañoo muñ xiif ak mar waaye mënuñoo muñ sawara sun borom si waxuma la waxuma la boo génnee da ngay am waaye boo amul sax sa xel day dal yow boo amul sa xel day dal waaye dalaay gi xel gi ngay yóbbu mooy tax nga am waaye gis nga fër fër ji nga gis ak réll réll jéeg kenn amul jàmm ci góor ñi daanaka jigéen ñee leen ko teg parce que dañ lay bëgg loo loo mënut yow nga nekk daanaka xarum yar lu nu wax rek nga yëngal say béjjën ni waaw moo tax borom bi mu ni wala yasriq na bu ñu sàcc ñetteel mu ni wala yas nii na bu nu njaalo cim njaalo njaalo moo salte njaalo njaalo moo salte la ndaw sa ne woon cim cim loolu di naka la ko mën jigéen mën a defee jaaxal na ma njaalo mooy jigéeni jàmbur sàggan ba sëy ak góoru jàmbur te takk ko cim affaire bi day téye xel sax wala yàlla xam na ne du caage ne yàlla moo ko tere wala yonent bi moo ko tere waaye dama ne ku toogoon di analyser affaire bi ni mu maam ñàkk faayda gi ci nekk ak jigéen niñ ko sécuriser ak jigéen ni mu ni mu ni mu amee martaba ju kawe ak jigéen ni mu fooree ak jigéen ni mu valoré ak kiiraange yi ko lislaam muur bu leen ko jox loxo bu leen wéet bu leen tukki ànd ak moom ah sàmm ko ba yooyu yëpp nga mën a fëkk sart yooyu yëpp ànd ak góoru jàmbur cim looloo salte yàlla moo salte moo bon cim te li gën a kéemaane mooy ndeysaan boo ko xasee def da nga yàqu njaalo njaaloo soof yonent yàlla bi nee na saa bu nit ki di njaalo yàlla day rékki ngéema ngëmam rékki xam nga rékki rékki mooy ngacc ba mu set wecc génn ko saisir saisir sa ngëm yàlla affaire bi tiim la soo tuubee tuub gi dëgg mu dellu si waat problème mooy est ce que tuub gi dana dëgg moom i dellu si waat soo tuubut wala tuub gi dëgguwut affaire bi jaaree fa dem nga jaaree fa moo tax mu ne la yazni zani xiina yazni wa huwa mumin kii njaalo jamono bi muy njaalo gëmut yàlla ba léegi maa ngi leen delloo ci tafsir suratu nuur yi yépp leeraloon nag azaniyatu wazani ak yu demee noonu nga xam ni njaalo ci boppam cim njaalo moo salte te góor gi njaalo ki yow ila yawmi yunfaq fi suur du la mas a respecté ti gis nga góor mën na laa takk fase la continuer di la respecté waaye njaalo moom boo ko defee góor même bu la takkee même bu la takkut du la respecté ba yowmal qiyaam loolu bokk na ci mbugal mi ko yàlla lay mbugalee ci fii ci àddina benn ngoo ñaareel mooy njaalo day waral yàlla rékki sa ngëm ñetteel mooy njaalo cafka bi amoon sa digganteeg yàlla nga xam ne da nga yëg yàlla di ko taxamti ko mel ni kuy ma cap tàngal nga xam ne da nga yëg ni yow mii kat ab jaam nga bu woyof bu doyadi waaye yàlla ku man la ku foor la tey ji amoo doole amoo kàttan waaye ku la songu xam ki nga wéeroo dëgër ngëm yàlla neexit boobu day rocceeku njaalo day waral li ñu tuddee firaasa dootoo ko amati firaasa yàlla moo koy may ko gëm yàlla ñépp ci bokk yam nag soo góorgóorloo sàmm say bët doo xool lu bon wala bariwul wala yaa ngi tuub nga góorgóorlu di def la la war sa digganteeg sa borom ngay góorgóorlu ci ay jaamu yàlla wallahi am na mbir yoo xamante ni yàlla dala koy baaxee nga di ko xam nii du kumpa du leen mën ngaa gis benn waay rek xam ni kii ab fenkat la benn waay waxa yoo nga xam ni kii li mu wax day fen nit ñëw yor mazharu ku yiw nga xool ko xam ne kii friand la te yàlla xam ne loolu loolu firaasa lu wér la donte xadis bi ci ñëw dafa daayif waaye borom xam-xam yi saxal nañ ko imam shafii imam malik ñoom ñëpp wax nañ ko firaasa lu am la ah kon yàlla dala koy xañ ñaareel mooy da ngay am lu ñu téye waxsha mooy sa digganteeg yàlla ak sa digganteeg nit ñi day mel ni maanaam da ngay da ngay yëg nit ñi dañ lay dañ lay doyadal te doo xam lu loo def nga yëg sa digganteeg yàlla yow day mel daanaka yow sa dara safatut suñu borom te yow doo xam loo def loolu njaalo da koy waral nga doog a ñëw nag ci musiba yi nga xam ne koy tudd njaalo loolu lay wax mooy ay day waral feebar ak day waral gis nga yàlla moo def jigéenu jàmbur ak góoru jàmbur saa bu ñu àndee ñaari ndox yu wër ta daje daje loola la ca nekk ci ay risque ci yu mën a jur ci ay feebar yàlla rek ko xam waaye jigéen jaa cay gën a dee nag xoolal biir bi nga xam ne moo war a jur wàlli yu moo war a jur imam moo war a jur ku baax moo war a jur nangam biir boobu ndox mu salte dugg na fa moo xamante ni waru fa woon a jaar cim cim te xoolal njaalo ni mel tey dafa wasaaroo ndeysaan allahu akbar da ngay gis nit ki ci boppam wallaay day jooy mu yëg ni moom bëgg na yàlla waaye affaire bi saa bu départ rek taxawaat su su jugee rek toogaat su bëggee góorgóorlu affaire bi tëleeku ñaari fan lay góorgóorlu ñetteel mu delluwaat ca lam nekkoon fekk moteur bi dafa yàqu changer moteur rek fekk moteur bi dafa yàqu jigéen nag daanaka mën naa ni mooy mooy musiba ji ci njaalo ndax góor moom njaalo mën na ko bañ a takk fenn waaye lu dul bàkkaar ba muy am ci suñ borom xanaa bu ko suñ borom da too feebar am ca waaye jigéen jigéen li ko ci mën a fekk ci ay musiba bari na trop ci njaaloo waxuma la nag yee nga xam da nga koy ñàkk sa digganteeg sa borom moo tax am na yenn xeeti bàkkaar yoo xam ne boo ko xasee def di nga set de man ngaa set de waaye nag na nga yëg ni bennam sangu bennam sangu taxul nga set kon wala yes nii na bu nu njaaloo ba mu ne bu nu njaaloo benn jigéen daa tëb ni waddat ni yonente bi awatasnil xurra nit ku baax dina njaaloo allahu akbar xoolal ñooñu ay wàcc bees hind wàcc bees la parce que boobu da doon doog a tuub di mu ne awatas nil xurra ndax gor dina njaalo am na ñoo xamante ni nga njaaloog ñoom nga rey leen moo leen ko gënal parce que jàpp nañ bu ñu xësee njaaloo yàqu nañ yaxeet oto bu moo ko ñaatoo nañ sànni ji rek amul dugg gaaras te wax naa ne la góor bu xësee njaaloog yow dootu la respecté ila yawm al qiyaama déedéet saa bu la xoolee rek bët boobu la lay xoolee ëllëgati sibir mas ngaa njaalo ëllëgati sibir saa boo ko xalaatee rek da nga yëg mettiti xol dafa am pikir buy dal ci sa yaram boo xam ne dootoo ko mën a dindi mukk sauvegardeel sak ndaw ngay góor wala ngay jigéen njaalo dee na la ko gënal li gën a kéemaane te xaw ma yëg ngeen ko wala yëgu leen ko gis ngeen tey dëkk bi daa fees dell dell dell dell ak ay homme de tenue yu jigéen du noonu gis nga am na tane yooyu bu ñu lay wax nuñ leen di recruter lii may wax nii ku ko xam di kilifa ca ñoom ah xam li may wax bu baax ma xam ko comme ni ma leen xamee moo ma ko nettali mu ni ma moo taxit bu njëkkoon li doon ëmb ci seen biir bul xam nu mu toll moo taxit léegi bañ ëmb ba tax na ay préservatif dafa fees dell ci seen camp yi lii ki ma ko wax ku xam lim ma wax la ba ma ko xamee léegi ëpp na fukki at ak nangam nee na jigéen ji bu ñëwee pour ñu recruter ko bokk na ci niñ koy def mooy dañ koy futti ba mu set wecc comme ni ko ndeyam juree woon ay weenam dañ koy natt ba xam nu mu toll am na ci foo xam bu ñu fa yekkee seen loxo la ñuy jël dugal ko ci awra ndaw si te loolu dinañ ko def góor dinañ ko def jigéen góor ñi dañ leen di futti ba ñu set wecc bokk na ci xëy na bu nekkuloon tën yépp moom façon bii may wax moom am na bu dul ñëppit bii am na wala ñu futti leen bañ set wecc teg leen ci wenn wan ak ni leen yéen ñëpp dem leen ngeen bokk sangu xam ngeen yooyu bokk na ci li ko waral maanaam li ñuy tuddee am jom ak kam kersa lañ bëgg mu dañ ci yow parce que métier mi laajut loolu métier mi laajut am jom laajut am kersa te xam nga loolu kuñ ko di jom ak kersa kuñ ko dindi ci yow alku nga mu ni loolu moo waral ay musiba yu bare bare bare di ci am barab tel mu tuddaloo benn barab barab ba su ma ko tuddoon xam ko ba mu fa xewee kilifa ga ca gën a mag moo ëmbal benn jigéen ca ñoom ñu tëj ndaw sa moom nag kenn di ko tëj parce que li tax mooy kilifa la lii may wax ni mi ngi ci réew mi kat di fii Sénégal di génn ñu Sénégal di ñu ngi Sénégal gis nga de moo tax l'islam frontière yi mu doon tëj ci jigéen saa buñ ko tëjul rek musiba am wala yas nii na bu ñu njaalo tey ñu bare bare bare bare bari surtout ci weer wi ñu toll nga xam ne ay feet da cee bari li ciy njaalo ci ay nit li ciy ëmb ci ay nit yàlla rek moo ko xam li gën a garaaw nag mooy am soxna ba noppi njaalo wala am jëkkër njaalo ndax kooku moom pombiteer bu nëb la génn sànni rek moo tax ku mel noonu dañ ko war a rey gis nga képp ku njaalo te am jëkkër wala nga njaalo te am jabar kooku dañ ko war a rey kooku yàqu na léegi dafa bare bare bare bërki démb bërki démb laa mujjee am gan rek ku ma nettali jigéen joo xam ne ne wujjëm noonu la def borom këram tukki bàyyi ko fi moo tax gis ngeen ko liy xew mu daal di am doom ginnaaw mu wuti beneen doom feneen kon borom bi subhanahu wa taala mu ni wala yazniina bu nu njaalo wala yaqtul na awlaadakunna bu ñu rey seeni doom bu ñu rey seeni doom rey see doom nag ibni kathir rahimahullah bi mu koy tafsir dani ray direct ak ray indirect yépp ci bokk yam am doom suul ko am doom sànni ca foos ba am doom xoj ko naan lu yàq ëmb bi wala li xew tey jii tembe nga xam ni ab luwaala boo xam ne mi ngi ci taabalu njiitam réew ñu koy waaj a voté ci liwaay réew mi mooy avortement médicalisé bu njëkkoon dañ daan avortement musiba la léegi dañ ne avortement dañ koy médicalisé médicalisé mooy lan mooy jigéen am na droit ëmb mu yàq ko bu ko neexut mu yàq ko bu ko neexut da ngay ànd ak sa waa ja ngay caaxaan boo boo ci ëmbee nga dem ñu defal la avortement gratuit xam nga loolu ci réew mi ay jamono boo ko mos a def dañ lay tëj léegi médicalisé mooy dañ koy nangu léegi ba loi yi nangu ko te gis nga li ñuy tuddee al ijhaadu muy avortement damay delloo jigéen ñi ci ñu dem ci ñi jàng diine te xam li may wax wala ñu dem ci jàng tubaab ñi xam avortement mooy lan ak yan conséquence la mën a jural nit ki boo ko xamee ba noppi nga xool nag ndax provoqué avortement jar na ko wala déet. gis nga même buñ ko médicalisé ak luñ ci mën a def ci ay milliards avortement ci boppam mooy loo xam ne dafa bokk ci li suñ borom borom programme mooy day lor ku jigéen ala ayati xaalatin kaanat ak lu mën a xew ndaw si da cay lor. léegi buñ ko médicalisé it du tee musiba dana am léegi nag loolu mooy foyi leen loolu mooy xale bu jigéen mën na dem caaxaane ba mu nekk mu daal di ñëw léegi daal dem ñu daal di koy avorteel te bu njëkk bu ko nit defoon dañ lay tëj gis ngeen yàqute gi fi mu jëm dahara al fasadu fi l barri wal bahri ma kasabat aydi nnas bu leen rey seeni doom jigéen dina yëg ni rey yàq ëmb baag naan lu koy yàq ak pikiiroo avortement médicalisé ak buñ médicalisé wut ak fekk moom na ko suñu borom dogal xanaa ak jur sànni ca foos baag yooyu yëpp yàlla mu ne wa idal mawudatu suilat liir bi dañ koy taxawal ni ko hey bi ayzan bin xutilat yow ki la rey na la wax tey jii lan nga def ba mu rey la yaakaar naa loolu di nga ko lijjanti ko lu rëy la kon jigéen ji bu mu rey doomam moo xam dafa ragal ñàkk moo xam daa ragal borom gis nga gémmiñ ko yàlla xotti dugal ca lu mu lekk lu olof yàgg na ko wax lu wér la gis nga borom bi subhanahu wa taala dafa dogal ni adduna bi ñi fi war a ñëw ñëpp danañ ñëw insha allah programme bu gaa yi mën a teg nag léeg-léeg dëgg la sax moytandiku baax na loolu ñun ñëpp nañ moytandiku waaye léeg-léeg li ngeen tiit jàpp ne dañuy dem moom yàgg population bu wàññeeku wallahi du ba sob li war a judd lépp dana judd insha allah xadifa ngi boo xam ne Cheikh Nasir mu ni wér na yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam mbir mi war a judd même buñ ko sotti woon ci kaw montagne sax yàlla dina ko saxal nit buñ ko sotti woon ci kaw montagne sax yàlla saxal ko nit ki war a judd faw mu judd kenn mënta tee mu judd jigéen ñi nag ñu yëgal ne ay lor am na ci gis nga conséquences yi am façon yi ngay xew avortement médicalisé naanal doom yi defal defal ay jëlal ay pilule jëlal ay lii jëlal ay lee moo taxit loo ci gis jigéen joo ci gis su mboy tànk yaa nga ni foddu toll ni ab ab yeel wala nga gis koo xamante ni biir baa nga mel ni ku toll juróom-ñeenti weer te yàlla xam ne ni ëmbut sax wala nga gis koo xamante ni foo ko fekk mi ngi sotti deret wala nga gis koo xamante ni dafa tuuti woon léegi nga gis rek su waay ma ngay daanaka toll noo xamante ni am na loo xamante ni màggaay mënta gaawee noonu waay yàlla am na loo xam programme wu ko noonu yooyu yëpp ay conséquences la yuy am jigéen ñi xam nañ li may wax chaque jour léegi ci bëccëg ci mujj nga gis chaque jour nit ñi dañuy woote sama régal bi nii sama régal bi naa dara yii am daawul am gis nga saa boo ko defee day dérégler règle bi tey day indi njorgel day provoqué njorgel mooy deret buy sotteeku chaque jour ba doo xàmmee lii mooy règle ak lii du règle ak yeneen i conséquences yoo xam ne biir yi métteeg ila axiri yi ak yeneen ak yeneen bal sax mën naa waral nga dem ba dootoo amati doom mën a amati doom yooyu yëpp mi ngi ci am te ñi ko xam-xam nañ ko dañ koo waxut moo tax suñu borom mu ni wala yaqtul na awlaadahum bu leen rey seeni doom kan mooy am njariñ yàllaa ko xam benn doom doy na ma bu dee ba toll ci fa muy amee njariñ mu faatu nag mu nekkoon ñaar du gën a baaxa benn doom doy na ma nga màgg far yàlla may ko ndombay tànk ci àddina yu wér loolu boo ci amoon ñaar du gën a baax benn doom doy na ma nga màgg mu nekk borom xam-xam boo xam mi ngi xidmaal umma bi loo xam ñëpp a ko bëgg a jur boo ci amoon ñaar du gën a baax mbir yi bàyyil na ko yàlla programme nga am ay doom moo tax li may faral di wax jigéen ñi mooy ku mën a jur jur leen ba kër yi fees del billahi da leen di yokk ay martaba ca yàlla jur leen ba kër yi fees del del la laa del bu kenn tiit nahnu narzuquhum wa iyyakum nahnu narzuqukum wa iyyahum garanti bi ñëw na ci ñaari côté yépp yaa fi nekk doom ji ñëwagul sunu borom mu ni man maa lay wërsëgal bu yegsee maa koy jox wërsëgam doom ji daa yegg sunu borom mu ni maa lay indil wërsëg boo xam ne tay tay tay tay tay bu dul woon ak doom ji wër sunu borom du ko indi ko ndax maa la doon wërsëgal lu yàgg gis nga garanti yi de léegi nag jigéen nga xam ni moo gën a jege rayum doom sunu borom mu ni wala yaqtulna awlaadakunna bu ñuy rey seeni doom façon buñ ko defee nag ak lu mën a xew ci àddina façon buñ ko defee xam nga moos da ngay gis ndeysaan am na benn waay boo xamante ni dégg na dañ koo juróon sànni ndeysaan am ku ko for mu màgg nekk milliardaire milliardaire xoolal milliardaire ci àddina ci alal yàlla baaxe ko xiir ko ci lislaam teg ci ñàkk xam ay way juróom naqari ko naqari ko naqari ko naqari ko ba mu metti ko mu aj dem màkka dem ba ca kaaba ga mu ni yàlla samay way jur niñ ma xañee bànnee xam xam ñoom ñooy kan yàlla na nga leen xañee ajana noonu ah kii ñaan kafut de te fam koy ñaanee nag moom li fépp day am réseau moom foo dóor rek mu dal kaaba ga kaaba ga moom amul taxaw foofu di ñàkk réseau yi ñaan de boo fa taxawee moom boo ñaanee bu la suñu borom dimbali rek day daal dal xoolal loolu ni mettee ñi nga xam ni ñoom ñoo ma xañ ma xam leen yàlla na nga leen xañ xéewaluk àjjana xoolal loolu ni mu garaawee tey jii ñaata nit nga gis ñoo xam ne kenn xamul seeni wayjur ñi ngi jariñ ay jaabur te fekk seeni wayjur ñu ngi dund léeg-léeg nga gis ci ku dem ba commencé am njariñ seeni baay ak seen yaay commencé dab dabaatal naa yooyu maa nekkoon baayam ñàkk ful la ñàkk fayda xoolal loolu kon doom bu la ko yàlla war sa gëlee jël ko nga yar ko doom ci boppam day dolli ay xéewal waaye du ko wàññi bul tiit ñàkk yàlla mooy joxe subhanahu wa taala àndal ak ngëm nga war moo tax sunu borom mu ni wala yaqtul na awlaadakum na bu ñu rey seeni doom ba ca topp mu ni wala yatiina bi buhtaanin bu ñu andi ay duur duur muy daal ak waaw ak raa mooy aw sos xudu hada sos woo xam ni yaftarinahu ñoom ñoo koy fent bayna aydihinna ci seeni loxo wa arjulihinna wala seeni tànk sos wa bokk na ca comme ni ko ibni kathir di waxee mooy dugal ci askan wa ku ca bokkut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bépp góor boo xam ni dafa jur ba ñuy wax nag ci lislaam ba pare ci lislaam a tax ñuy wax waaye waxuñu ko caaxaan ca àll ba jur ba pare lànk ni juruma doom ji na yëg ni xetu ajana du ko xeeñ mu ni bépp jigéen bu dugal ci askan ku ca bokkut bañ boole ko ci defe ni ci la te fekk bokku ci na yëg ni xetu ajana du ko xeeñ moo tax wolof di lépp naan jigéen sañ naa giñ ñi sama doom ji maa ko jur waaye bàyyi sañ te giñ ñi sama doom ji maa ko jur xam nga léeb yooyu xam nga lu taxoon olof doon ko léeb yaay moom laa chaque moo wasin ku gis ku ku wasin kay kan mooy jur ko dul ki wasin waaye bàyyi nag est ce que moo jur wala déet parce que jigéen mën naa njaalo doo ko yëg tey jii na ngeen yëg ni loolu mi ngi am maa la ko wax jigéen sàggan na bañ dem ci góoru jàmbur moo xam jëkkëram mi ngi fi moo xam jëkkëram daa tukki moo xam nangam mu am falam fay am ëmb ca nga ñëw defe ne yaa jur nga ndeysaan nga ngénte fekk juróom wallahu yaalam wa antum la taalam yàlla moom xam na gis nga loolu bu amee pexe moo mën a def ba débrasé wu génn ci parce que sa ajana moom bul ko garanté dara gis nga tayle tayle booy tayle da ngay tayle loo xam boo ko ñàkkee du la wàññi dara waaye ajana kenn du ko tayle kullu nafsin bi ma kasabat rahina ku nekk la nga doon def moo lay tayle buntu ajana ba nga réglé ko ba noppi bu leen andi aw sos boo xam ne da ngeen koy sos seen diggante ak seeni loxo wala seeni kanam muy sos woo xam ni ab bàkkaar la borom xam-xam yi ñun nag ki sa sëy ak lu dul sëy yépp ci am sos wa day jàll tu azinu waxtu yu jotul ayo azinu ana sama kon sunu borom mu ni wala yatiina bu ñu andi bi buhtaanin ci ay nar ci ay dóor yoo xam ni yaftarinahu dañ koy fent kere ko bayna aydihinna seeni loxo wa arjulihinna wala seeni tànk bakkaar boo xam ni aw sos la ay wax la te xam ngeen ni jigéen tamit sos da koo yomb loolu tamit bokk na ci jigéen ju ragalul yàlla li ko sunu borom nattoo mooy sos da koo yomb gis nga jigéen bu la jugalee pour bëgg a njaaloo ki yow mbaamu jurgal la pour bëgg laa tuumaal mbaamu jugal la pour bëgg laa sosal mbaamu jugal la pour bëgg laa xas-xas woo xamante nii daanaka jar na gas bàmmeel dugg ca boo ratee rek yàlla la dimbali maa la ko wax loolu moom daa bokk seeni point fort mën nañoo sos aw sos woo xam day tas ab dëkk ku nekk génn dem dëkki feneen loolu moom mën naa nekk moom ñoom moom mën nañ ko bu fekkee ragal yàlla newu ci ñoom moo tax suñu borom di leen tere loolu topp saw làmmiñ parce que làmmiñ rek la am làmmiñ wi mooy doole ji mooy lu ni comme góor nga xam ne mën naa futtee ko xeex wala nangam déer làmmiñ wooy doole ji moo tax yu bare bare bari mën nañ ko wax sa fekk gëmuñu ko yàlla xam ne léeg-léeg jigéen wax loo xam ne day tas kër nga pare mu ni moo ma wax lu ma naqari moo tax ma kere may lu ko naqari xoolal loolu am na benn waay boo xam ne la mu wax jëkkër ak jabar da caa tas parce que daa waxal jëkkër daa waxal ndaw si da doon xuloog moroomu ndaw jigéenam mu waxal ko loo xamante ni su mu waay góor gu ko dégg wàcc sa jabar góor gu ko dégg wàcc sa jabar fekk dara du ca dëgg ba yëf yee jàllee ñu laaj ko gis nga li nga def mu ni moom wax lu ma naqari ma wax ko lu ko naqari xoolal loolu kon jigéen na ragal yàlla moytu di wax ci làmmiñam ci ay sos lu lu nja sa doom bul bul ci boole ko ci bokkut njaalo moom xam nga ni ko ko dul def kon doo fexe dugal ci askan wi ko ci bokkut te gis nga bu la yàlla dimbalee nga yow jigéen ci nga góorgóorlu nga sàmm sa bopp ba am jëkkër te mosoo xam góor te xam ngeen ni est-ce que loolu xam ngeen ni amatul maanaam su ma nee amatut mooy téeméer boo jël ñett nga cay génne 3 pour cent fii may maa la ko wax benn sondage la boo xam ni ay nit ay expert ñoo ko def sondage boo xam ne ay expert ah xawma kaw ga de waaye ndakaaru laay waxee man ndakaaru parce que sondage bi may wax ci ndakaaru lañ ko def téeméeri jigéen yoo jël juróom ñeen fukk yàgg juróom ñaar yépp yépp yépp xam nañ góor doo ko tàbbi ci sëy maa la ko wax ci musiba yi dañuy njaalo dañuy foo dañuy ida axiri yi xëy na biti àll ba boo demee am na ñu ngi dese yaru diina ba léegi peut-être que foofa xëy na mu xaw a tane parce que léegi mooy yàlla dafa yomb jumtukaay yi dafa yomb est-ce que seetlu ngeen auberge yi ni mu baree léegi da ngeen yaakaar par hasard noonu noonu la rek dañoo dem ba lekk yi ñàkk a baax feebar yi bari pharmacie bari du noonu ñu dem ba bàyyee lekk lekk cosaan di lekk lekk dajjil ma ci paquet bi boutique yi bari ñu dem ba njaalo wasaaroo auberge yi bari boo jógee defal seetlu bi ma la wax boo jógee rek defal seetlu bi nga xool noonu rek la demee moo tax mooy yàlla gu mel noonu réew mu nekk yow ma yow ma deful sax da ngaa war a tiit yow yow ma deful sax da ngaa war a tiit parce que am na genn xeeti yàq goo xam boo ko xasee yàq yow ndax di nga mën a jurati lu baax yow magasin bi nga xam ne moom la yàlla programme ñu war cee produire doom yu baax yi ndekete sa waay la fa njëkk a dugg dara baaxu ci te wax naa la léegi te bàyyi ci xel nag góor bu la xasee xam te jaarul ci sëy ba keroog malaaka mi wal baftu bi du la respecté te même bu la takkee ak bu la takkul yépp a ci yem te góor mën na laa takk wàcc la ba noppi respecté la te moo ne la koy séq ak yow dong la séq ak yow waaye li ko waral mooy lii daa bokk ci li la yàllay toroxalee ba keroog ngay dajeeg moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bi mu rañaane dafa romb aw xur woo xam ni xet ba fay génn daanaka day bori bakkan xam ngeen xet guy bori bakkan xam nga xet moom mën naa naqari yem ci naqari nga xeñtu rek taf sa bakkan waaye xej goo xam ni coolool saak ni mu tàngee ak ni mu met naqaree day boo sakku sa bakkan rek da ngay bori ngay génn deret mu gis ay nit yoo xam ni soluñu mbubu soluñu tubay di paccax paccaxi ci ndox mu salte moo xam ni yonent bi laaj ñii ñan la ñu ne ko ñii ñooy njaalokat yu góor yi ak njaalokat yu jigéen yi li leen suñu borom fayee waaye nag ki nga xam ne yàlla nattoo na ko mu mos kaa def amaan na xëy na booba xamagut diine amaan na booba mbir yi leerul amaan tey am na sunna ndax butu waaw waaw illa man taaba parce que bi yàlla wax ci suratu nuur bu ngeen fàttali ko wala suratu furqaan ci tafsir nañ ko bu nit ki tuubee tuub gi dëgg fa innahu yatuubu ila allahi mataaba saa boo tuubee tuub gi dëgg waaye nag foofa nag mbir yi jafe na de tuub gu dëgg googa mooy jafe tawbatan nasuha su ko defee sunu borom dana la ko jéggal ba am na fooy toll sax sunu borom da lay remplacer la nga defoon ci ay musiba defal la ko yiw kon wala yaasinaka buñ la mooy mu ni fii maarufin ci lu baax yonent bi li muy digle lépp lu baax la kon lépp lu baax loo leen digle duñ la ci mooy léegi nag foofu nasiba binti kaab nee na moo tax comme duñu mooy yonent bi ci lépp lu ñu digal mu ne yonent bi dool na ci buñ nekk di yuuxaloo ku dee comme jigéen ñi nañ doon def démb jigéen ñi niñ doon def démb mooy ku faatu da ngay jël ay jooykat di leen fay pour ñu jooyal la dëj bi te loolu defe naa mi ngi am ba léegi am na ku ma wax ni ma benn dëkk mu ni ma mi nga am ba léegi kaay leen jooyal ma dëj bi nga xam ni kooku moom mën naa jóge këram ree maquillage di fo di ree ba yegg si ci kër gi nag léegi pour jooy dëj bi loolu la waa doon wax naan ummu kaab mu ni ko su ma faatoo na nga ma jooy ba ñëpp xam ni maa dee su ma faatoo na nga ma jooy ba ñëpp xam ni maa dee léegi loolu ban njëriñ la koy amal ba te dañ koy fayantoo li lay wane dañ koy fayantoo yonent bi daa wax ni bu kenn jooy ko dee benn jigéen taxaw rek li bañ a jaayante yonent bi ni ko la tax doo jaayante mu ni ko ah man ka daam ko xam daf maa lebaloon ca dëjëm ba daf maa daf maa lebaloon ay jooy ca dëjëm ba xoolal wax yii ni mu ni mu sànnee koo rek diw kat waa kër ñoom diw dañ maa lebaloon ay jooy ca sama dëj ba te kat bor la dama kaa war a fay may ma ma dem lijjanti koog ñoom yonent bi kat te xool yonent bi ma mën a jàngale may ko ko de comme ñu ngi taxaw affaire bi weesagut xam nga loolu moom tekkiwul ni dagan na waaye li muy tekki mooy comme yëf yaa ngi nii mu ne ko may ma tuuti maa ngi ñëw xaw ma daa dem jooyal leen xaw ma daa dem fay leen xaalis xaw ma daa l'essentiel daal dem na lijjanti ko dellu si waat doo ko jaayante ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam te it bu kenn di yuuxu di buddi sa kawar wala ngay xotti say lex wala ngay dagg say yére ila axirihi bokk na ci yonente bi jaayante woon ak ñun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak yeneen ak yeneen lépp lu dugg ci maaruf lu yonent bi ne lii bu ko jigéen def rek jigéen ji na ko ci boole kon daal ci gàttal bu leen bokkaale yàlla dara dara dara sàcc moom na génn ci sa programme njaaloo moom bul ko xalaat cam dafa salte dafa salte moom même bu dul ay yàlla da koo tere rek lim lay yàqal ak pertement bi nga ci am ak lim lay indil ci ay musiba dafa salte ci boppam jigéen ci boppam ak xabaaralam ak yàbbaaralam wërta yegg ci nangul góor gu ko takkut loolu moom dafa dafa dafa silwisiwut dafa rafetut maanaam toog di ko xalaat sax loolu jar na jooy toog di ko xalaat rek mos nga kaa def loolu toog di ko xalaat rek jar na jooy maanaam jigéen ju sell mënut loolu loolu moom nañ la xoj nga dee mbaa ñu jam la nga faatu waaw kay moo gën sax nga di ko def parce que da ngaa am lu valeur loo xam ni bis boo àndeek góor te jaarul ci sëy perte nga ko dootul ñëw te ba yowmal qiyaama yàlla dana dana la mbugal ak du la mbugal nag kooku moom sa digganteeg sa borom la ndax loolu mbirum yàlla waaye am na honneur ak respect boo xam ne amoon nga ko ñàkk nga ko segam yonent bi nee na jigéen bu summeekoo fudul ca néegam ah fu mu warta summeekoo bu fa summeekoo ah kiiraayu kersa gi doxoon digganteem ak yàlla xotteeku na moo tax borom xam-xam yi di wax ni jigéen balaa summeeku na xool fa muy summeeku fan la ndax war na faa summeeku ndax ay góor ña nga fa ila axirihi saa boo summeeku xool summeeku foo warta summeeku kiiraayu kersa gi doxoon sa digganteeg yàlla xotteeku na kon xanaa mën nga caateeg ni kon bu njaaloo kan kay sa waay fiil ya dagg na fiil yi mu amoon diggante bi borom yëpp dagg na moo tax la yazni zani xiina yazni wa huwa mumin te it nag bu ñu rey seen doom bu ñu njaalo bu ñu indi ay sos te it bu ñu mooy yonent sa salam ci ay ci ci lu baax su fekkee nangu nañ loola fa bàyyiahu na jaayanteel ak ñoom condition yaa ngi nii nag wastaghfir lahunna allah nga jéggalul leen yàlla ça veut dire que jéggalu lu ñuy jéggalu kon moo lay wan ni li ma waxoon sànq nit ki mën naa am aaya ji bi mu ko déggee tey fekk am na lu mu làq lu mu mosoon a def wala boog keneen déglu ko amaana xëy na am na bàkkaar bu mosoon a def loolu ndax day tax nga ne man yàqu naa yàqe dootu déedéet wastaghfir lahunna allah yonent bi nekk nekkatu fi nag waaye yow yaa ngi fi yow jéggalul sa bopp wa ma kaana allah yu'azibu anta fihim wa ma kaana allah yu'azibu wahum yastaghfirun jéggalul yàlla subhanahu wa taala fa bàyyahunna jaayanteel ak ñoom wastaghfir lahunna allah nga jéggalul leen yàlla te nga xam ne inna allaha yàlla kat ghafurun ku mën a baale la rahim gis nga xoolal ay li muy tàng tàng tàng li ngay tiit tiit xoolal ghafurun rahim tawabun rahim maanaam seetlu lii ma lay wax ci suratul nuur ci suratul furqan ci suratul baqara ah ayat yu garaaw yi nga xam ne day tiital nit ki ba nga yaakaar naan yàqu naa yaxeet njéggal la ko yàlla jeexalee allahu akbar maanaam dalay dalay naawal ba nga tiit mu xëccaat la nag la dee li nga def moo rëy rek moo tax ñu doon la naawal waaye nag boo nangoo tuub léegi ñu xëccaat la nga bokk léegi ku bari yërmande la ndeysaan xoolal ci période bi ñu toll nga xam ni musiba yi ñuy wax wala ayaas bi la nga xam ëpp na sax a wax di askadalee yàlla doom xasanul basri mu ne xoolal yàlla mu ne afala yatubuuna ila allah yéen du ngeen gaaw ngeen tuub xasanul basri mu ne xoolal ñii liñ wax lu ko gën a rëy seen borom amul lu mu def lu dul di leen woo ci kaay leen tuub wa yastaghfiruna ngeen jéggalu kon moo lay wane yàlla ku bëri yërmande la yàlla na suñu borom yërëm suñu borom ni ya ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla laay waxal la ma tëjee tëjee woon saar wa loolu laa koy tëjaatee mbir mi mbir mi am na am na solo de sabbaha lillahi saar wu ko tàmbalee mu dem ba mujjantal ga mu ni yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard kon moo lay wan ni kii lim doon wax ñor na ko de tim tàmbale na ko tëjee na ko fii mu ñëw mu ni ah yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla laa tattaxisu adu wa aduka awliya fii mu ñëwaat mu ni laa tatawallaw qawman bu leen méngoo wala ngeen di xaritoog wala ngeen di jàmmoo wala ngeen di paasante ay teraanga ci ay nit yoo xam ne ghadiba allahu alayhim yàlla daf leen a jëppi daf leen a mere muy yahud yi ak nasaara yi waman naxa naxwahum ak ku jaar seen yoon aaya jii nag maa ngi ciy profité occasion di wane ni ñoo ngi ci weer woo xam ni nee na ñooy mooy fin d'année sa yoon new ci déedéet sa fin d'année jàll na muharram safar rabiul ula rabiul thani jumada al ula jumada thani rajab chaban ramadan shawal dhulqaada dhulhijja bu gaa yi jógee màkk at mi jeex jeex na sama at jeex na fi ne yaa ngi génn ci safar di dugg ci muharram shahrullahi muharram yaa ngi dugg ci rabiul awal boobu yaa ngi jógee ci safar dem ci rabiul awal bépp jaamu yàlla guñ la ci kéréel ni la gii ci weeru muharram bii la sax xamal ni loolu bi daa la bépp feet guñ ci organisé xamal ni feetu yéefar la wasala li ma wax leer gépp jaamu yàlla gu ñu organisé di ko askanalee l'islam naan ci weer wi la jaamu yàlla googa bidaa la maa la ko wax bépp feet buñ ci organisé feetu yéefar la sa yoon new ci islam ku am fayda la ci programme am tëri na ko ba noppi ñaari feet la muy tabaski korité tam xarit sax du tabitu feet ci l'islam ndax yow yaa ngi jëfe santaane bi yàlla wala déet natt ko tey nag imtixaan ji mumtaxana imtaxin nafsak nattal sa bopp gaa yi nee nañ dañuy feetu ci at mi bisab tey bii ci bis yi nit ñiy feetu la bokk tey bisab lan la du 24 du tey la tey mi ngi tombe bisab 24 ci weeru décembre yan cay wax ba tax ñu koy feetu moom ëpp naa wax ci gémmiñ damay wax ne man di ko jàngale sax léeg-léeg di ko wax sax man dama koy xaw di ragal ndax daa am kàddu yoo xam ne boo koy wax sax bu yàggee te du la naqari sax mbaa du yow bu yàggee ngëm yàlla gi mi ngi fi. parce que di ko tudd sax rek romb jàll affaire bi sax dafa dafa dafa dafa dafa tiitlu li ñuy askanee yàlla ci amuk doom ka moo def nangam ila taala allahu an dalika uluwan kabira ba di ko feetu. imam ibni taymiya rahimahullah ci téeréem bu ñuy tuddee iqtidaau sirat almustaqim wala nga dem ci téeréem ibn al qayim bu muy tuddee ahkaamu ahli dhimma wala nga dem ci téere bu mel ni al muhalla sarx al mujalla bu ibn hazmin wala nga dem ci yeneen téere lii may bëgg a wax boo demee da nga ko fa fekk mu faram fàccewu benn par benn benn daganum nga dimbalante ak ñoom ci lenn lenn lenn même la ñuy feetoo sax la ñuy feetoo yow sa yoon mu ci nekk yow am na ci ku yegg ci ñoom ba ni benn nen benn nen boo ko dimbalanteeg ñoom rek mu ne lañ fas loolu nga fas yaag ñoom a yem benn nen man ahda ahda ilayhim baydatan benn nen rek boo leen ko fa joxee yaag ñoom yéen a yem maanaam yow da nga waroon a am naqar wu rëy li benn borom xam-xam di wax mu ne ki toog ba mu yàgg mu ni day feetu ñu ni ko looy feetu mu ni juddug yonent bi laay feetu waaw yonent bi fa mu juddoo fa la faatu lu tax jooyloo faatu gi xaw ma seetlu ngeen mbir même déet yonent bi fa mu juddoo fa la faatoo maanaam fi mu juddoo mooy dat bi mu judd ca dat boobu la faatu léegi lu tax yow nga tànn feetu lii te tànnoo jooyle yow kay boo xasee tànn lii tànnal lee ñaar yëpp kay ñoo war a ànd ci li ma yaakaar xanaa gis nga biddaa biddaa ci boppam moo yor korosé boppam di dóor boppam yoon sa salam dat biñ koy date naan ci la ju ci la juddu dat boobu ci la faatu jàpp na ni feetu léegi nag dañuy laaj nag foofu nag ndax feetu ko ak jooy ko ban moo ci gën a yay ndax yow li ngay feetu loolu la ñu war a jooy di kadaalika nga ñëw ci feet yi ñuy def du feetu lislaam de feetu koog kontaan caag félicité nit ñeeg bonne année koy anente yow sa année jàll na di ban ban ban année at yow sa at jàll na di at bi ñuy date da nga yaakaar ne jullit jullit ñi fekk nañ fi dat bi adat bi dëgg la donte rek leeraloon naa ci suuratul kahfi ca wa yaquluna ca fa ñuy waxee naan wala bi su fi kahfi salaasa meer si wasdaadu tisa wax na ñaari weer yépp weeri lislaam la waaye nag bii la lislaam tànn pour di ko def am atam jigéen ji buy gis baax ca lay natt buy eddewu ca lay natt buñ ko wàccee ca lay natt bu borom këram faatu kadalik sa yoon nekku ci ya dool buñu ci séddalee ay calendrier sax nga fooy xoole dat jëlal boo ko bu fekkee fañ ko joxee dagan na loolu moom dara néew ci jëlal bu fekkente ne lañ ca def baax na te calendrier daanaka benn baaxatu ci parce que l'islam tere dong lañ cay def ndax bu ci amul ay ay nataal am na leneen lu nuroog nataal léegi sax daanaka yu gën a boni nataal lañ cay def bu fekkente ne dañ cay jokkalante ay félicitation yooyu sa yoon nekku ci kuy félicité kan ngay félicité ak ci lan ngay félicitante waa ji nee na yàlla ci dat bii la am doom nga félicité ko yow yow nga félicité ko lan lay feetu mu ni yàlla subhanahu wa taala dafa am doom yow ngay félicité teg moom ci loolu yow est-ce que xool nga li ngay def bu baax nga dem jënd ay cadeau jëndal sa doom ay cadeau feesal kër gi ay cadeau takk fii ay fleur takk ay nangam lu xew ñu ne dañuy feetu am doomuk yàlla yow nga ànd ci loolu la de di taal ay pétard def ay fleur lépp da ngay gis jullit boo xam ni ca lay profitoo jënd ay meuble jënd ay nangam beesalaat kër gi pentirat allahu akbar loo xam ni tabaski sax yeyowu ko soo gisee men tabaski yeyowu ko mooy bokkul ci tabaski boo ko defee baax la waaye boo ko deful kenn santu la ko wal adha wal amar mooy am na jullit yoo xam ni yàlla xam na ni feet gi lañ gën a fonk feetu tabaski tey ji boo duggee ci marché yi rek nga laaj commerçant yi xam nañ ci dara da ngay gis koo xam ni li ko li ko li ko wutal xale yi ay kado jaral wut xarum tabaski jaralu ko parce que fu mu jaar ndax jigéen ji mooy sonn même bu dee leb dana ko lebi lu ko teree lebi mu tabaski ndax moom bu fekkee mën naa tabaski daa waroon tabaski gis nga sunu borom ni yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla laa tatawallaw bu leen xaritoo mbaa ngeen di méngoog mbaa ngeen di farak qawman aw nit woo xam ni ghadiba allahu alayhim yàlla daf leen a jëppi daf leen a mere mu ne qad yaisu ñoonu tonk nañ ñàkk nañ yaakaar min al axirati ci mbiram alaxira kama yaisal kuffaaru comme na yéefar ya ñàkkee yaakaar seen yaakaar tas min ashaabil qubuur ca ña tàbbi ca bàmmeel ya aaya ji mu fassiru dañ ko firee ñaari firi benn bi mooy qad yaisu min al axirati kama yaisal kuffaaru min ashaabil qubuur yéefar yi ñoom am na ci ñoo xam dañoo gëm ni dee amut dekki comme dee amul dekki moom fu ñu sama mbokk su xësee dee jeex na ya isa min ashaabil qubur mooy sama mbokk bi bu ko xasee suul moom sayee dootuñ dajeete ba faw parce que gëm naa dekki amut ibni kasir mu ne am na ñu ko firee noonu am na beneen firi mooy kama yaisa alkuffaaru yéefar ya nekk min ashaabi alqubuur bañ demee ba fekk fa mbugal ma ñu ñàkk yaakaar xam ni sayee yërmande yàlla dootuñ ko amati mu ni ñooña nañu ñàkkee yaakaar ah gaa yi bu leen méngoo gaa yi nga xamante ni xad yaisu ñàkk nañ yaakaar bu leen xaritoog gaa yi nga xam ne yàlla daf leen a jéppi bu leen xaritoog gaa yi nga xamante ni ñoom dañuy askanale yàlla suñu borom lu amut mu ni xad yaisu ñoo na tonku nañ xad yaisu perte nañ seen yaakaar tas na min al axirati ca bañ yeggee alaxira kama yaisa al kuffaaru comme na yéefar yee seen yaakaar tasee min ashaabi al quburi ca waa bàmmeel yàlla suñu borom musal ci loolu allahuma asturna fawqa al ardi wa taxta al ard wa yowma al ard aleyk nu ngi ñaan suñu borom mu def ci ñun ngëm yàlla goo xam ni nattukaay yii de bu ñu ci natta dana fekk ñu mat sëkk nu ngi ñaan borom bi subhana taala mu boole ñu min ahli alqurani wa xaasati اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين